sant nag suñu kilifa suñu mentor comme ni ma ko waxee démb suñu xarit suñu dëkkandoo ñu dëkkandoo Mbodj 3 fii ci Sam Notaire di la président El Hadj Malick Gakou sant tamit conseil Yewwi Askan Wi yëpp nga xam ne tey ñoom ñoo waral lii ci seenu ndigal lañ ma wax démb barki démb. ne ma démb bu ñuy installé nañ leen ko def le maire honoraire de la ville de Guédiawaye kon moom mën na dégg monsieur le ministre nekk na ko ñaari yoon moom El Hadj Malick Gakou ngi dégg monsieur le président nit ki démb nag waa Guédiawaye dolli nañ ko ci beneen ndomba tànk muy monsieur le maire te loolu tam moo ko liggéey. yor na parti mais jàppale ñu ci campagne en commençant par man mii nekkoon la candidat de la ville candidat wu nekk ci cinq communes yëpp mu leen doon bàyyi xel di leen gunge jàppale ñu ci côté yëpp candidats yi ñoo ngi fi ñoom candidat yooyu tamit ñu sant leen gërëm leen parce que maire ville bi nekkul ne bis bu nekk.

bu Sam Notaire Aminata Kanté mu daj momit lune sonu ne sonn dégg lu ñu tek ci tamit suñu rak di Khadija Maye kor di maire golf ak suma mak suma xarit tayir Konaté di maire bu Wakhinane Nimzatt ak maire ndiarem limamulay Khalifa ababakar Thiam nekk suñu sëriñ ñooñu nag la waa Yewwi jiitaloon waaw ñëpp nag jàpp ci président des jeunes Yewwi département bu ma ko tuddee tudd naa jeunes yëpp su ma tuddee madame Aminata Faye présidente des femmes moo ngi nii toog département tudd naa jigéen ñëpp ñu sant ñëpp daal gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo ci nekkoon gërëm tam la presse parce que ñoom it dañoo bokk nag ci liggéeyu woy politique yi ñu sant leen gërëm leen bu baax maa ngi leen di tooñ démb ne leen j'étais votre candidat le candidat de la presse ñuy ree waaye léegi presse bi léegi am nañ maire ko defee nag comme niñ ko waxee woon rek monsieur le président altine di incha allahu rabbi ñu ñëw liggéey waxtaan nañu ak le secrétaire général de la mairie monsieur Diawara tout est calé attente bi mom ñep xam nañ ko géejewaay ni affaire bi démé won jàpp leen ne ñëpp ak ñuy xaar lu ci way jàppoon tamit nga dal di koy dolli ñu bolo nek ben liggéey suñu gox bi nga xam ne ñun mom lañ am di géejawaay di leen xamal né nak lool dal lañ amone luñ leen yeggee kon tay ci bis bii nga xam ne bis bu màgg la.